salut maître Maimouna yang si jam en fait man la jigen bi Modou don yak deram ci réseaux sociaux yi dimanche dama la contacter pour wax la deug bi yep parce que dafa nek di yak sama der te loolu duma ko nangou motax ma contacter la pour leral la deug gi yep num mu demee ni en ligne dama la ko ñaan rek so gisé sama message le contacter ma ma leral la lepp lii nii du yoon mu ñëw di yàq sama der samay mbokk di ko déglu ak ñeneen ak ñeneen ñu yaakaar ni man jigéen ju bon laa moo tax ma bëgg lépp mu leer dëgg la de dina ma teraanga bu ma ko dul mën a fay moo ma jàppale ci sama jàng jàppale samay waajur jàppale sama famille te tamit yàlla dina ko ko fay ndax lu baax rek la ma ji

est-ce que doo mën a bàyyi bu suba man maa ngi Sénégal ñëw naa depuis démb mais Modou xamul ni maa ngi fi dama ñëw nag pour ñu leeral lépp samay waajur xam dëgg gi moom tamit ay waajuram ñu xam dëgg gi ñépp xam li xew ok déglu naa sa message yëpp euh, affaire bi nag jëru na ma lu sérieux mais mën nga ma wax exactement lan mooy problème bi. déjà man ci commencement bi dama yaakaaroon ni bëgg naa ko ñuy dem di dem di dem ba ma xam ne lii mënatul nekk parce que bugguma ko ku nekk nag war a jël yoonam. maa ngi lay remercier nag ci tontu bii nga ma tontu ak sa temps bi ma accordé parce que tamit guddi na. mais mën nga ma wax exactement lan mooy problème bi puisque marié ngeen avant ngeen di dem pour góor jooy bi jooy nii muy jooyee nii am na lu xew. man newoon naa ko bugguma la newoon naa ko bugguma la moom mu ne bëgg na na naa sëy ak moom noonu moom xamoon na ne keneen laa bëgg. chëtëtëtët man jigéenu tey jii mais du yow yaa ni woon moom moo fay say étude ak yëpp mais bi mu lay fayal étude yi lan moo taxoon mënoo ko woon wax ni ko déedéet bëgguloo ba bi mu ba ñëwee fii jox la xaalis ànd ak yow ngeen ànd tukki boobu bu léegi lan moo tax mënoo ko woon wax ni ko bëgguloo ko mais tur nan la noo tudd man Fatou laa tudd moom waxoon naa ko ne du benn du ñaar que ni bugguma la waxoon naa ko ni bugguma la mais muy insister en plus dimbali ma man dong am na ñeneen ñu doon dimbali pour lan moo tax yemalewu ma ak ñeneen ñi. mais est-ce que mën nga ma wax dëgg est-ce que du yow yaa woo police pour ñëw jël si ko. balaa may wax li may bëgg a wax dama dama bëgg nga wax ma mu leer dëgg gi est-ce que daf la bett ngay wane sa yaram appel vidéo ak yeneen nga baal ma de maître Maimouna mais loolu sama vie la man la concerné manqué ma la nag de respect mais loolu yoonu kenn nekku ci la may def ak ka may àndal ak ka may waxal yoonu kenn nekku ci sama vie la. nii nag maa ngi Sénégal du nee na bu ma nekkee Italie du ma mën a def dara parce que jigéen laa mais maa ngi fii. na ñëw fii moo xam lan la may def ak lan la mën a moom est-ce que mën na la waatal ni foofu topp fa xale jigéen ñi est-ce que mën na la waatal ni amu fa ay gel Fatou xoolal guddi na te bugguma ko ma mais est-ce que yow yaa ngi déglu sa mais yow jigéen bi sëy nga doo jigéen bi sëyu mais yow jigéen bi sëy nga même la loi sénégalaise mayu la ngay def naka sudul noonu mais xoolaatal sa bopp. maître bul yuuxu parce que man ci njëkk ak teraanga laa nekk di waxee ak yow donc bul ma yuuxu Moodu na jàll ca xaj man bugguma ko te maa moom mënatul nekk maa ngi nii Sénégal ak sama benn tubaab bu ñëw seet samay waajur même góoru sénégalais yépp jongewuñu xamuñu nan la yoree jigéen xamuñu nu ñuy téyee jigéen mais yow da nga yow yi seen genre gi moo tax góoru sénégalais yi mënuñoo téye jigéen mais yéen yéen yéen koo yow maître ñu fanaanoog jàmm ndax gis naa ni yow amul sax njëriñ benn njëriñ may wax ak yow ndax nangu woo comprendre bonne nuit ñu fanaanoog jàmm dinaa la xamal leen gis nga façon bii ngay waxee ak man moo lay ne yow même say parent sax respecté wu leen te Moodu euh, yàlla moo xam li muy def ndax genre jigéen bu mel ni yow méritoo ko ndax nit ku baax la.